asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ay mbokki jullit muy docteur Dame Dia ak docteur Khadim Dioum ñu nekkoon di liggéeye ci pharmacie Digon moo tax jataay bi jóg tey ji kilifa yu takku li mu teewe ko ngir baat boobee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci ne képp ci yéen ku gis na njekkar na ko dindi soppi ko su fekkee mën na koo dindi ci loxoom su ko mënul na ko wax su ko loolu yépp rawee na ko naqari ginnaaw ñun ñooy jënd lépp lu nit di jaay jaayukaay yooyu ana lan moo tax fexewuñ ba am yu mel noonu walla sax yu ko gën a kawe ba lañu cay jële du doon mukk luy xeex jullit ci lu feeñ wala mu doon lu nëbbu mënees naa wax sax ne nangam ku ko def dangay jox doole kuy xeex diine mën na laa wóor mën na laa ñàkk wóor mën naa doon lu nëbbu waaye lii moom dafa di lu fés loo xam ne ku ko xool gis ko ku déglu dégg ko ku làmb itam daj ko lu tàmbali nag di raam yàggut dara lu mel nii am kon bés ko dogalewut fa muy jëm moom ñëpp xam nañ ko te doon lu baax lu doon lu gën li yëngal xoli jullit yi ba tax ñu dajee fi eh, wane na ci it gis-gisu lislaam xam nga ne wax na ko bu baax ay bokk yuy bokki jullit yuy liggéey ca pharmacie Digon defe naa ne loolu dèjà ku ne xam na ko ñu ci sababuk seen diine seen fonk seen diine ak seen taxawaay tam mat ko sëkk ndax suñu boroom a ngi tagg ci alquran jullit yi nga xam ne wutum koom du leen tax sàggane jaamu seen boroom yeneen sallallahu alayhi wa wax na ci xadis bu wér ne julli mooy kenob diine ku ko taxawal taxawal na diine ku ko màbb màbb na diine kon waaw góor góore yéen ñi nga xam ne nanguwu leen a màbbu seen diine su ngeen bàyyi woon julli rek màbbu diine te bàyyi xel li wolof di wax ne lii raam ci ñag bi la jëm man defe naa fi mu toll ni mu jëmee ci ñag bi sax weesu na raam day daw wuti ñag bi jot na sëkk nag julliti senegal maase ne leen arrêté taxaw jot na ndax euh, nit kum man di doon bàyyi ko ci am réewam ñëw ci am réew te doo respecté seen diine doo respecté seeni aada su boobaa nag jaadu na ci waa réew mooma ñoom it nag ñu soulever wu contre la te loolu kat suñu jàmbaar ji Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu defoon na ko fii yi yàlla bañ ci dëkk bi yi yàlla bañ bi mu koy tere ci dëkk bi muy sàngara ak yi bokkam ba nga xamee ne am na naar bu nekk ci mbàkki gii te ne moom dub jullit yoonam nekku ci diineem terewu ko loi bi terewu ko du ko bàyyi Sëñ Abdou Lahad daf caa jàngale woon njàng mu leer ma bëgg jullit Sénégal ñu jàngat ko dafa jël rajo Sénégal wax ne am na ku nekk ci Mbàkke gii te lii may bañ te yàlla bañ ko moom nee na du ko bàyyi waaye yéen ñi di taalibe digal nañ leen ngeen bàyyi ko kon ku sukkandiku Sëñ Abdou Lahad na la wóor ne digal na la ñu bàyyi gigoom ak lu mu am ku bañ ku julli lu ñuy luñ koy doyet lu ñuy séqateeg moom ndax xeex diine rek la te ñun diine lañ am diine ji waruñ cee maslaak kenn moo ne ci kaw loi bi moo ne ci kaw république bi xëy na yooyu baat nag ku ko wax ñu ne àddina tukki na waaye wallaahi laasim nit ñi loolu lañ gëm diine ji moo jiitu république bi moo jiitu loi bi ànd ak ne am nañ maslaa lool waaye diine ji moom mënuñ cee maslaa kon ñun ñépp ñu takk def benn say ànd ak bokk yi ci xeex bii fas yéene fépp fu waay waxeeti lu mel noonu yi moo xam muy école ba ca topp ak feneen fu nit di nekk te di fa liggéey lépp luñ ko fa bëgg a xatal ngir diine ngir yàlla jullit ya nañ mànkoo te bàyyi ko def boycott senegal ku fi jullit yi boycotté doo doo doo dem mukk ci àddina moo tax nag njaboot yi àndandoo dajaloo ci jëf ju ñaaw ju jooju nga xam ni moom la pharmacie borom pharmacie boobu def ak ña ko jiitu woon ak ya ko jiitu woon école yooyu nga xam dañuy bañ ko fu muuroog yi ci des yépp yëg na ko ñu àndandoo dajaloo nag tey ngir xam le loolu lañ bëgg mu dakk te loolu lañ bëgg mu faju tey dootuñ ko seetaan te duñ ko bàyyee kenn ndax seen liggéey la seen seen seen war-war la seen ndigal la bu defee nu xam ne lislaam du lu ñuy foye l'islam du lu ñuy caaxaane lislaam moo nekk ci kaw lépp ci Sénégal gii képp koo xam ne kii bëgg ngaa nekk Sénégal di fi liggéey di fi jariñ te fas yéene ne da ngay xeex lislaam su boobaa jullit yi war nañoo jaamaarloo ak yow nag ñaari noonu yi rekk fi nekk nag noon bu njëkk bi mooy ku mel nii nga xam ne dafa bañ diine bëggu ci dara te it du juwóog diine mukk wala tarda ankal yahud wala nasaara xataa tatabbiha millatahu koo xam ne kii nag li fekk bàyyi woon ni nga nekk du ngeen déggoo te bay bàyyi duñ bàyyi diine kon mooy tekk ni duñ déggoo ba faaw muy noon boo xam ne bii dafay xeex xeex bi mu di ko def ci ay pexe ci wàll yëpp kooku doog moom yomb na ndax nitu intere la intérêt ko fi bàyyi bëggul dara ci réew bëggu fi diine yi bëggu fi aada yi bëggu fi dara intérêt ko fi bàyyi ginnaaw intérêt ko fi bàyyi nag xeex ak moom yomb na mooy noonu julli yëpp nañ maase bàyyil ko fi bàyyil ko fi bitigam boobu muy jaay loolu muy jaay nga xam ne mooy pharmacie boobu képp ku dib jullit da nga ko faa ndax nag dafa wóorut sax nag dafa wóorut sax nag koo xam ne kii day xeex diine ba noppi dina jaay garab kooku soo sàgganee posen la lay jox boo xam da ngay da lay rey ndax kenn dafa bëgg a rey sa ruux ba rey sa imaan rey sa lépp waññee ko di la jaay lim la jaay waroo ko wóolu kon jullit yi kii daal def na lu bon ñëpp teg nañ ci bët lan koy faye nag mooy léegi li siñ xaar yi waxoon fii sëñ Blaat waxoon mooy kooku daal nañ ko fi nañ ko fa ne teggal la muy def lépp buñ jëflanteeg moom buñ waxanteeg moom buñ jëndanteeg moom ndax moom du dellu gannaaw mukk kon mooy benn noon bi loolu mooy ñu nekkoon pharmacie Guigon di fa liggéeye bu waxtu julli jotee comme ni leen ko seen diine sante ñu fexe ba def yitte te dem julli ji ba def yi te dem julli ji te julli ga du yàq ci seenub liggéey dara ka nga xam ne moom lañ fa nekkal xajoo wut loolu di leen ci bunduxataal di leen puus di leen puus fu ñu koy defee mu ne leen fii dee su ko fi defeeti ba yegg ci far mu ne leen tere naa leen ko euh, yamut ci tere leen ko kon ñu won ko ne ñoom mënuñu koo bàyyi ndax li ñu warloo ak yow ñi ngi koy def te lii yàlla nu ko sant mu yegg ci am sañ-sañu Euh, bind lettre de licenciement dàq leen euh, ñu leen di ndokkeel ñoom ndax euh, lislaam am na ndam ci googu wet comme mu àndul ko diine loola du dara ay ay jay rek la fa muy mujj ak yow du doon fenn loolu nag tax ñu daje fii en tant que ay jullit ni ko sallallahu alayhi wa sallam santaane ci ku gis loo xam ne nii warul nga bay ca sa tàmbulee ko ci dindi ko soo ko manee boo ko mënta dindi ak sa doole wala sa loxo nga wax ci ngir ka ko mën a dindi dégg ko dindi ko soo ko mënul ba mënoo ko nga naqarlu ko ci sa xol kon ñu toll ñun ci di ci yëkkati sunu kàddu di ko naqarlu te di ko ñaawlu te di ci wax itam nag ndax lii ah lu doy waar la te du lu war a am ci réew mii ndax ni ma koy waxee ku ne am nga sañ-sañu ne fii sama barabu liggéeyukaay la du ma fi bàyyi barab buñ mën a jullee wala nga ne fii dama ko def ngir liggéey defuma ko ngir julli waaye nit ki doo bàyyi liggéey bi di julli ji ci waxtu julli nag loolu kenn amu ci droit te li ñuy wax mooy ay contrat moo leen boole ak ki ñuy liggéey contrat yooyu yëpp ci ay loi la tënku ci loi réew mi réew mii nag moo warul a am benn loi boo xam ne dañ ko fiy teg. te du may jullit bi mu doxal diineem ca na mu ware ndax li ëpp ci nit réew mi ay jullit lañu même bu fekkoon ne minorité lañu fi kenn amul droit tere kenn mu doxal diineem ni nit ki amee sañ-sañ ci buy liggéey ba waxtu lekk jot mu bàyyi liggéey ba dem lekki buy liggéey ba waxtu aajo jot ci lu mel ni yi nit di aajowoo ni ki tuur ndox wala moo xam lu mën a doon mu bàyyi ko ko dem liggéeyi noonu la nit ki amee droit ci buy liggéey ba waxtu julleem jot mu dem julli ci sañ nga ne sama barab bi su ci waaye nag normalement nit ki dafa war a am temps buñ ko may boo xam ne nii day bàyyi julli ga kon dem seet day bàyyi liggéey ba dem seet fu mu mën a julli jee mu dem julli ndax li wér te wóor mooy foofa du ay jullit rek ñoo fa nekk xëy na jullit bi moom temps bi muy jël di ko jëfandikoo ci wàllu diineem bokkul ak keneen bi waaye ni mu amee droit lekk ak naan daal ak bu amee aajo dem doxi ko ci wanag ak yi ni mel noonu la amee ah, ah, droit ci dem julli ci bu la neexee na nga ne ko sama barab doo fi jullee waaye contrat bu mu mën a doon dafa war a bàyyi xel ci lu mel noonu ndax ci lu luwaay réew mi la tënku te lu waaye réew mi dafa war a bàyyi xel ci citoyen réew mi ba ku ne mën a exercer exercer sa diine ca ni la ko lislaam santaane ñu koy ñaawlu lool di wax ne euh, loolu moom ci ak jaay rek la lalu ndax bu fekkoon ne nit la koo xam ne ku am diine la muy ka moom foofa wala ka dogal lool képp ku am diine doo bañ keneen doxal diineem ca nam ko ko sante malheureusement nag réew mi léegi ay saay-saay ñoo ko fees dell ñu bañ diine tënkuwuñ ci jenn diine waaye lislaam lañ gën a tee bañ te it yemuñu ci yàpp euh, ci bañ ko waaye dañ ko bëgg a yàpp nag ndax bu ñu sañee doxal yenn ci réew mi daal te xalaatuñ ci dara tiituñu ci dara ragaluñ ci dara loolu moom mooy euh, amatuñ dara lu ñuy seet fañ jëmoo ni yegg nañ fa. toog yëpp yaakaar naa ne yëg-yëg bi benn la mooy suñuy bokk jullit yu ñàkk seen barabu liggéeyukaay ngir dund seen pas-pas loolu nag ñun jullit ñëpp ñoo ci wala solidarité ndax ponk bu mu ci mën a doon ku koy néewal doole ku ne jullit ñi dañ ko dañ ko dañ cee war a taxaw rawatina muy bi nga xam ne. mooy kenal diine kon ñoo ngi wax suñ mbokk yooyu ne leen seeni bokki jullit noo ngi leen di feeñal seen solidarité di leen dëgëral di leen wax ne continuer leen am leen constance am leen persévérance ci li ngeen nekk ndax yàlla moo wax ni wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib parce que yooyu ngeen ñàkk sama borom di leen wotale lu ko gën fuuf bi iznihi taala ma bëggoon nag noonu en tant que ay talibé sëñ Touba wala ay jullit waaye surtout ay talibé sëñ Touba sëñ bi moom euh, dafa fonkoon loolu jëf te Cheikh Ibra Fall daana wax ni maa ngi xaar bañ fay wax bàyyi jëf moo bëggoon yéene jooju ñu tàmbalee ko fii léegi ci jotaay bi jaayante lu fi waaye am muy dërëm muy junni muy lu mën a doon yàlla nawut xewut maa ngi koy ñaan ñu jaayante jàppale ko suñu mbokk talibé yi nga xam ne ñoo fi teew ak suñu mbokk jullit yi nga xam ne dañoo ñàkk seen pas ngir seen pas-pas toog yaakaar naa ne yëg-yëg bi benn la mooy suñuy bokki jullit yu ñàkk seen barabu liggéeyukaay ngir dund seen pas-pas loolu nag ñun jullit ñëpp ñoo ci wala solidarité ndax ponk bu mu ci mën a doon ku koy néewal doole ku ne jullit ñi dañ ko dañ ko dañ cee war a taxaw na muy bi nga xam ne mooy kennal diine kon ñoo ngi wax suñu mbokk yooyu ne leen seen i bokki jullit noo ngi leen di feeñal seen solidarité di leen dëgëral di leen wax ne continuer leen am leen constance am leen persévérance ci li ngeen nekk ndax yàlla moo wax ni wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib parce que yooyu ngeen ñàkk sama borom di leen wotale lu ko gat fuuf bi isnillahi taala ma bëggoon nag noonu en tant que ay talibé sëñ Touba wala ay jullit waaye surtout ay talibé sëñ Touba sëñ bi moom euh, dafa fonkoon loolu jëf te Cheikh Ibrahima daana wax ni maa ngi xaar bañ fay wax bàyyi jëf ma bëggoon yéene jooñ ñu tàmbalee ko fii léegi ci jotaay bi jaayante lu fi waaye am muy dërëm muy junni muy lu mën a doon yàlla nawut xewut maa ngi koy ñaan ñu jaayante jàppale ko suñu mbokki bi yi nga xam ne ñoo fi teew ak suñu mbokki jullit yi nga xam ne dañoo ñàkk seen pas ngir seen pas-pas